Ramadan Ramadan Ramadan Fatou Ndiaye waaye ñu àq waaye ñu jéem bu baax ci weeru koor gi problème bi waaw waaw. daa yi daa yi dana Diallo. Diallo bañ a àq bañ a àq. waaw waaw waaw waaw dégg nga. waaw waaw Mère Fatou Ndiaye. kon ñu lañ jóge ay ay wàcc kon bi bañ a àq. moom moom moom maa yàq de. waaw man maa la yàq yow yow maa la yàq yow. waaw yow maa la yàq Fatou Ndiaye mi mbal ma. weeru koor gi nga bàyyi mën a bàyyi sa mbib bi. xoolal yow wax ma ak yow. dem dem leen ngeen solu. bale ñu àq ndawanal gi ndawanal gi. bale ñu àq. doo teel la koorite koorite baal ñu àq ba déwén. waaye pour seen buntu kër. waaye xale yi nag tey la korité. koorite ñu àq waa koñ bi ñu ngi jégalu bu baax waaye. Ah, ba baax xale yi seen bool yi seen bool yi ñu raxas. man kër gi daal ñoom dañoo teel a raxas sax ginaar yi xanaa balaa ngaa bàyyi fii bool yi di nga raxas ginaar yi ci kaw ba pare. gerte bi nekk gerte bu baax gerte gerte bi kii Mbalaba. gerte bi liggéey dara jox wàcc leen borom. Mbalaba gerte bi nekk Mbalaba. gerte bi liggéey dara jox wàcc leen borom doole. xëy na kan xëy seen mën aaram tool. Mbalaba gerte gi gis ngeen. waaye gerte gi xoolal sa benn pétard. wala googu sa nga mbax. Kuteban tak cakin gunung segunung gun waaw waaw ndekk validé ngay am foofu ay caabi yu neex première attaque nag lañ naan lu dara xewagul si kanam ginaar dugg si du jooy du neex ee eh, waay samba wali moom rafet na de eh ma sama xarit xam nga nga ëppal tegal bisi koori tey dañuy jàmm kese la sama kudd moom rek jàmm la laaj bàyyi ma ñëw jàppale la ñu liggéey. baax na ko wax gisee. waaw la àq. ok. jàppale ma fii moo gën wax ju bari gën. billaay moo ko gën gis nga gis nga daan dëkk ba daan. ku la nga jël fresh bi dugal ko si caagi rek soor. day tax mu changé couleur. xam nga sa raxas day fokk bool. mën ngaa dem damay def def ko. ay waay jii amoo si desoon rek. jërëjëf jërëjëf maanaam moelle épinière xaru. bi dem waat woon la rek moo yëngatu rek. Ah, bu kenn yëg nag dañ dem. bal leen ñu àq. bal ñu àq. xoolal tey la koorite koorite yow bal ñu àq ñu def. yow bal ñu àq. bal ñu àq. xoolal bay maas koorite koorite yow bal ñu àq ñu def. daa yi nii waaw waaw waaw waaw kàr kàr la kay. jaarale léegi yéen a mën. waaw waaw waay Sidi Sène toogal. ndax xaw a tiit na moom ah. man nga. xool ko mënoo bi mi mel ni sans prix. xool mi mel ne man fu nga jaay nii. toogal ak sa ñampe bi nga teg sa bopp. da ngeen may énervé. tuwaar kàlla macha allah nag tey la korité. Mhm. ku ne korité nag ni jàmm. barki yonent bi ginnaaw nag. ba woor nañ ko ci jàmm ba ba ba ba nar koo wari mm-hmm. nañ baalante àq mm-hmm. buñ baalante àq ba pare man moom fépp fu leen seen nijaay féete woon ginnaaw ba dafa dem voyage man danaa leen fa féete tey ku ne umpalewul ni chauffeur bi kii laay moom dem na seen dëkk mm-hmm. Pape moom ma ngay neloo moom du julli moom kenn xamul lan la moom bu ko kenn yee nag lekk gi nañ ko lekk bokk sax si kër gi nag bokk si kër gi sax waaw pël la di pël moom mooy ginnaaw nag ba ba ba ba ku nekk xam na ni Badara ku ko sëkk la. ba mhm. Badara ku ku sonle la. ba dara ku lakkale la. Mhm. Badara ku bëri histoire la. Mhm. te yéen yéen a ngi yéen a ngi dëkk ak man jàppee ma comme seen nijaay. kon nag duma def lu dul di leen baalu àq. ngeen baal ma àq nag. baal tey tey jii nag. tey la korite nañ ko korite si jàmm wante suba. inshallah allah bëgg na andak sama soxna si. ñu délu dëkk ba. Ah, ndax nak ah. euh, ba ni nga koy sax nee nañ saa boo bëggee ah, rey rek. doo ko jox lu muy dundé sa su nek sa so xëyee rek nijaay nijaay fi mo dama lay dog. dogu mala yalla bu la dé dog nijaay da nga wax lu am solo. da nga ni suñu nijaay bi mu ba légui ya ñu fi nekkal. ya suñu kilifa. ya ñuy orienté. Mhm. di ñu xelal di ñu tété kon ñun amuñu ko dul yow tay ji suñu rek yow lañu gis. waye tamit suñu lépp lu suñu nijaay waroon def ci kër gi yaa ngi koy def kon nag bu ma la déggee nga ni dangay dellu dëkk ba loolu du lu may lu su ma sañoon daal kër gi nga def ko ni sa kër doon na sa kër ba pare sax moom kay da ngay continuer rek ah. xam nga Seck dana di wax rek hmm. xam nga Seck yow maa ngi moom mi ñëw bokkul ndey ak hmm. ko hmm. suñu bu mu demee ba tey yow ku xam ne ni Seck bë bamance nuñu mel si dëkk sikk nañu yow nañu mën nañoo tooñ mooy ñu la jàmm loo xalaat def nañ la ko ah. teew. ah kay yaa ngi wax ni. wax de. wax a baax baal leen ko àq rek baal leen ko rek baal leen ko àq rek. xam nga koy moo tax. wax di du nekk rek def nañ la ko. teewal nga gumba coxlu faale woo ñu bu ba yaa ngi gérer ak ñun lu ñu naqaree dëkkal. ñu ne sensibiliser gëm tamit. Nah dégg wax ji ma da yow suñu waay nga amoo benn problème ah, ah. mais bu bu mbii ni soppee nga teg mu ñala gaañ ah, mu ñala gaañ wóorul xam nga yow nag doo tëgg rax ci përëm da ngay maam bal ma sama xale nga waxal moom waxal moom non kii moom moom moom moom dafa xaw hmm. a rek mais garaawul daal tey daal jouru jàmm la nan ko teg si temps ambiance ko cooro sànni si say kàddu daal daal li ma ci wax xam naa lu bari sama xol moo fees mënumaa wax ba comme que baalante nañu àq la bagaar yi yooyu bari woon trop si kër gi mais loolu yëpp saa passe instant bi moom lañ jaali si leneen tey bisub Korité la. su ma waxee lu mm, su ma waxee damay jooy. ah jooy waay so mi yande on de musu gila boko tan jelang bo fekke la sini. boole kau? ya man la man dama leen sa dugg di leen balu bu baax deug la gi man ak yeenam ci ñuy dóorante ka matan kii di def lu nekk man dama leen di baalu bu baax ngeen jàppale ma comme seen tante si kër gi. maa ngi leen di baalu gu wér sama nijaay mi ngi ñëw ngeen xajal ko si kër gi def ko comme seen nijaay yéen tamit. kon man awma see di yow tamit maa ngi lay baalu àq bu baax sax na parce que borom baax na fii laa laa abon yére nga àll ay yére ba. xoolal nettali xuloon na xuloon la indi dangay maam yow. bàyyi ko rek fas la ah. moom xamul yéeraa moom léegi léegi daal bu loolu yëpp yeesoo daal wax ji sax da koo jarul. damaa ba da nga maa ma fi wuy leen ma. dama am invité de marque. invité de classe. naaj la bu mën a bu mën a lekk daal naa ko naaj la. kon ma xam naa ne naaj mel kuy football wala kuy basket. maa ko maa ko xaaral ma ñëw am naa invité eh, eh, daal xaaral. Eh, waaw xanaa balaa ñëw di nga invité ba pare di ko njëkkal lekk. yow ku siis nga yow ku siis nga yow yow ngay gan ba pare di siis beneen gan. bu mën lekk rek ndax lekk bariwul. yow ni nga siisee nga naan nañ lekk ba pare yow ngay invité di siis invité Eh, xaaral ma dem jëli sama invité bi. ñëw si balaa invité bi. moom day ay moom da koy faral waaye. si danañu rek balaa invité bi ñëw. caaga buy la xam moom dafa doxal si naan yi rek. moom dafa doxal rek nekk gi ñu bàyyi ba si kanam. caa dama si si boobu noonu ngay. am ngay def naa kii yow. Ah. loolu dëgg la. Baba yàlla moo ñu tàndoo fay tànn baax gugu sa ndey xundeñ barki yërëm yaa mën a way am na lu fi mën a bi am na lu fi dañuy wala ah kay fi lebe lekk gaaw gaaw lañu ak ñu toog rek barka la ci demee coro coro servir waay servir servir mu gaaw waaw fi lebe lekk ah man man man gan gi xel man mo na bëgg boisson mo dama mar dama ambiance ba man ko man ah la xam ñu ci xatu mais ñu xel ci naka di am ñu gan ko ci kaas re bëgg jeex mais gan bu yewu nak nga yow min na sama ma sa dina fatam way wa inna wa inna pap la xamal moy pap kay man nga jaar ni la ila pap kër papa blessé wala na la ni. ñii ku leen xool xam ne dañoo bi seen nopp yi. toog madd eh, eh, eh. lan madd lan madd lan yow kañ nga commencé jafte ak wala la. maa am kii papa bu xonk parce que xam nga ah, yow man nga toog nii. Ah. xam naa ne yow yéen a ma teg gàcce kii moom sa nijaay borom kër gi yow eh mënoo noppi yow sant ku la xool ak sa wawaay bi ku rëy laa mel nga. kon yéen li ngeen di tëjoog ñii. mën ngeen ñii. yooyu ñoo famille yaa amal kii yooyu ñoo famille ñii bokk waaye si fekkee leen ci boole toog leen asgor bu defee ah, lu ñaaw dañ koy weer. Mhm. kii yaa eh, biiral kii kii biiral kii. yéen yéen a ñaaxu jom man xamoon naa ne la moo ah, tax man yàgg naa leen. kii daa ëmb ne daa tollu diggante. kan eh, dafa dafa eh, nànk. Mm. ah mais ñaar ñaar. toogal ah, ah def leen nànk lii lu mu doon. dafay nànk dafay nànk. am si mun maa wax yow. ëpp ko tawul dama jëlee ventilo bi indil kii. mun wax ñuy birale. ah am si kër gi dama fay dëgg. mun wax ñuy birale. wax dañu lu muy birale. man laa mi nag aw xam nga da may dimbali. noppil. saabu bos daa mel ni gisuma xaaral woon ko saabu. yow yàlla yow. Eh, yow ma ne nga dëju ku nekk xam ne dangaa biir nga naan dangay wane ko wow bët nga yow. soos beeg toogal. Eh, eh, way way way nee na ko soos toogal. rek la leen. ma la lay bàyyi rek waxoo loolu. Ah, wax dëgg. dafa nekk bu ko def doom bi bu juddoo nga xam ne bu ñu yéen mën ngeen a no wax jën xaar. ah yéen ñaar xarit ngeen. ngir yàlla noppi leen ma wax. kër day am baat. Eh, ñoo doon ah mënuma boole mhm. waay. xam ngeen xam ngeen ne lii dafa ñaaw. yow tëjee sa gémmiñ yow. affaire seere na boppam ndax ñetti lañ ñetti góor ñu ngi nii doon ñett kii ñëw dem ci kee. bala rasa ba keneen ñëw dem ci bee. kon ça veut xam ngeen ni man affaire defar na boppam. ginnaaw ba ëmbal ngeen nag. Mhm. ku nekk na nga ko gérer man après dinaa ko lijjanti ndaxte tey bisu bisu mbégte la daal nañ servir lekk yi ñu lekk rek ñii fekkee leen ci boole te yéen bokk ngeen ci fan ba pare waaw ndax ñii bokk nañ ci fan si biir ko mën nga si biir laati. ah nu war soo demee ñëw na. yow tamit da nga ëmb. xanaa bi moom kii ëmbul baal boo ko xoolee xam ne ëmbul. ok kii ëmbul bi baal mu teel a. Alioune Badara Seck ba ñëw na dañuy say doon ma def si géwél Seck ba ñëw na. lan la lu xew. géwél mbaal nil bir. la ilaha illa Allah Alioune Badara. noppil yow sama baal bu xur bi yow boo naanoon poulailler sax doo way. nen bokk je suis bébé la. Eh, ay xale ëmbal gi nañ waay. bul wax loolu. géwél mbaay ne fi jàng ba yaay te itam. Gak ada dara dama la koy dira di rasa sama xarit bi la fo wala fay da neexo wow bi lay ray da neexo de en attendant ma ubbi lii Kumba yow bu ma la jébbi ah doo ko ëpp yow lii rek ni gara nga <laughs> am am alin yaay gardien ci biir gardien motax mané len li du sens mérite la gis mhm. ngeen sen gardien bi da mat gardien oh. japp len ko téye ko te xamni gardien la ci biir gardien yi mhm. alin ya mën ya ëpp doole te ya gëna fété pa mhm. ya, alin ñam na ci biir ñam alin ci trio bi la wo manam bàyyi ma xel yaa ngi may xool sama xarit bi lé li ngeen ko fam sama waaw kay moo man len noir sœur de ben alin da ko ëmbal ah, illa illa allah eh taxaw leen nga ni yow iya, kay xanaa da nu war sa demee ñu toog ñu laayu kaaba loolu dëgg mané la seen kër teel ma ni ngay mën a ka fi goor nga assumé ñun ñi sey jarba dañu assumé togal amul bala ma lay wa sa la ñaata mo ali badar ali badar eh etijibbeyo mosuma naata xalumul da xalumul boko joxo le mom buma sét jégg la ci bir ngomong way amna lo manki bo manki won dara alin du ko wëri alin yow ku sonu nga yow xolé dina doon doy yow bu nga ko dé ma la fi indi way bu déggu do ré du wala fi indi wali day ramadan ramadan